UCAB FM li gën a fës ci yéen Papa Saer Mbaye coowal xaalisu mbas mi rawatina rapport bu ci cour des comptes génne yéenekaay yu bëri ñoo xëy di ci del seeti di xam ne rek ne ginnaaw coow lu bëri li nga xam ne kon mi ko koppar yi nga xam ne kon ko mbas mi doon fond covid bi loolu nag gouvernement bu Sénégal yëkkati nañ ay kàddu sunu naataango yi di xam ne ne ministre bi di Mamadou Moustapha Ba nga xam ne kon moo yore wàllu ko commerce ñoom nag yëkkati nañ ci seen ay kàddu ngir leeral taxawaay gouvernement bi Abdou Karim Fofana mi yore wàllu ko jënd ak njaay mi ak Mamadou Moustapha Ba mi ñu dénk wàllum finance ñoom nag tase nañ ab taskatu xibaar yi ngir rek leeral li nga xam ne kon moom moo di taxawaay pour gouvernement bi jëm ci ndénkaane ak digal yi li nga xam ne kon moom la la solo yéen kaay xëy di leeral di xam le rek ne gouvernement bu Sénégal indi na ay leeral ci li nga xam ne kon moo jëm ci wàllu ko coowal xaalis bi nga xam ne kon moo aj yi nga xam ne kon Cour des comptes noonu la ko bëggee ñoom nag fas yéene nañu sàmmontaak lu ni mel ngir ñu mën a leeral lu jëm jëm ci wàllu ko xaalis bi sunu naataango yi di xam le ne li ñu bëgg rek mooy lépp loo xam ne kon dana leeral mbir mi ñu fas yéene ci nemmeeku la solo yéeni kaay xëy di leeral di xam le rek ne gouvernement bu Sénégal indi na ay leeral ci li nga xam ne kon mooy jëm ci wàllu ko coowal xaalis bi nga xam ne kon moo aju ci wàllu ko mbas bi sunu naataango yi di xam le rek ne ñii di kilifay nguur gi ñoom nag joxe nañu ab ndogal ne li nga xam ne kon Cour des comptes noonu la ko bëggee ñoom nag fas yéene na sàmmonte ak lu ni mel ngir ñu mën a leeral lu jëm ci wàllu xaalis bi sunu naataango yi di xam le kon dana leeral mbir mi ñu fas yéene caa taxawee sunu naataango yi xëy di leeral rek di xam la rek Ba mi di ministre la rek ne kanam bi ne kon ci fukk ak juróom ñett ci ay ay matuwaay yoo xam ne kon jël nañu ko ca rek ngir mën a saytu lu jëm ci wàllu koppar yi ko ca rek ngir rek a leeral lu jëm ci wàllu ko fond covid bi nga xam kon yéen kaay bi moo xëy di xamal ne xaalis la bu toll na si junni ci ay milliards yoo xam ne nguuru Sénégal lañ joxoon digal ngir rek mu jàppale ko askan wi ngir ñu mën cee faju waaye tam mën cee jàppandi yéenekaay bi tey di xam la rek ne jamono ji nga xam ne kon mbas mi mi ngi lëmb biir réewum Sénégal coowal xaalis nag fi mu toll nii jamono jël na joget gi ndax nag ñi nga xam ne kon tudd nañ leen ca yéenekaay bi ba tey di xam la rek ne jamono ji nga xam ne kon ministère de la justice kay fi mu toll nii danañ ko joxub liggéey ndax nag mbir moom faaw dana ko leeral Sud Quotidien yéenekaay moo xëy di xam la rek ne kay jamono ji lu jëm ci wàllu taxawaay ba tàmbali nañu ko ko ngir ñu mën koo xool enquête yéen kaay moom la ko ñor bokk na ca ba tey taxawaay gouvernement bi ak li nga xam ne kon moo aju ci wàllu ka taxawaay bu nemmeeku nanu ko mu bëgg koo leeral lu jëm ci wàllu ka ndénkaane yi nga xam ne kon Cour des comptes joxe nanu ko ngir lu jëm ci wàllu ka rapport bi ñu mën koo leeral ba tey yéen kaay bi xëy di xam la rek na ci junni milliards yi nga xam ne kon moom la ñu joxoon nguuru Sénégal daanaka boo koy xool téeméer boo jël lu néew benn moom la ñu ca luubal su naataango yi xëy di ko leeral ne naka gouvernement bi ñu ko ci seen ay kàddu xaalis boobu la junni milliards yi daanaka mën nañoo wax ne kon juróom benn benn milliard yu toftal as lëf loolee nag kon moom la ñu luubal yi suñu naataangoo ba tey di xam ne nag fi mu toll nii taxaw a ma ngay sobental li nga xam ne kon moom lañ ko jëm ci wàllu ko manquement doon rek loolee nga xam ne kon moom moom la ñu gis ay rëq-rëq ci li nga xam ne kon Cour des comptes ko ci wàllu xaalisu mbas wala mu gàllankoor dara ci liggéey bi nga xam ne kon nguuru Sénégal taxaw na ko ci wàllu xeex mbas mi nga xam ne kon jafe-jafe dëggantaan lañu juraloon Walf Fadjri quotidien nag lii nguuru Sénégal nii ñuy doxale dañoo bëgg rek soobentaan li nga xam ne kon moom moo di rapport bi nga ne kon Cour des comptes ko l'observateur yéen kay ci wàllam moom ba tey ma nga ca wàllu ko taxawaay bi nga xam ne kon nemmeeku nañu ko rawatina nag seen digganteeg nguuru Sénégal jéego bi yees bi nga xam ne kon gis a a xam dëgg kaay bi di xam la rek ne loolee moom lu jafee xam la ndax naka fi mu toll kenn ku ci ne ak na ca taxawee ñi nga xam ñoo di ku jëk politique yi ñoom def nañu ko di rëq-rëq ak duubal yi nga ñoom ñoo di kujje gi ña ngay tàngal ñi ñoo di nguur gi ña ngay sobental yéen kaay bi xëy di laaj rek ne ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di askan ñoom fan la ko ci a dugal yéen kaay bi moo xëy di xam la rek ne loolee lu jar a xel la ba tey sunu naataango yi di eMédia point sn nekk ci li nga xam kon kon moom moo di internet bi ba tey ma nga ca kàddu yi Mamadou Moustapha Ba ak Fofana mi nga xam ne kon yëkkati nañ ay kàddu keneen mooy rek la rek ne ginnaaw bés ne kon moo jiitu Noël loolu nag kii jiite nga yëkkati kon moom lañu am ci ay ngëneel mu doon jàmm ji ak loo xam kon doon dëkkandoogu rafet gi yéeni kaay bi xam la rek ne kii di jàngu bi ma ngay rek ngir li ñu am ko puus néew si wàllu jàmm ñu bañ koo xajamal ndax nag loole doon loo xam ne kon lu ñuy indi lu ko dal Noël gi nga xam ne kon ñu ngi koy waajal yéeni kaay bi xëy di xam la ne Benjamin Ndiaye mi nga xam ne kon mooy jiite jàngu bi moom nag ma nga yëkkati ay kàddoom di kenn ku ci nekk rek sa taxawaay nga gën koo jekkal ngir jàmm ji ñu gën koo sàmm ci li nga xam moom moo di biir réewum Sénégal waxante ju ñaaw ji yenn jëf yi ñu koo moytu ndax nag loolee mën naa doon loo xam ne kon luy mi te doonul loo xam kon luy gën la ba tey moom ki nga xam ne kon moo jiite jàngu bi ma nga yëkkati ay kàddu di soññee rek ci li nga xam ne kon gis nañu teewlu ko ci ay ñaawteef yoo xam kon dañu ko gis ci biir réew mi la mu bëgg rek mooy nañu ca indi ay leeral Mamadou Moustapha Ba ak ay kàddoom ba tey Dakaractu.com bi nekk ci internet bi ma nga cay di àddu di xam ne ak ay kàddoom bi nga xam ne kon gouvernement Sénégal tax fas yéene ko ca taxaw di xam le ne junni milliards yi nga xam kon moom lañu ko joxoon ci wàllu ko mbas mi ngir mu jàppale ci askan wi loole bu ñu koy xool daanaka nag man noonu wax ne li nga xam kon moo ca latu toll na si juróom benn tegal juróom-benni téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ci ay millions yoo xam ne tegal nu nag lu toll si juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeenti junni tegal ñeent fukk ak ñaari dërëm yéen kaa bi xëy naka di xayma ne bu ñu koy xool daanaka mën na noo wax ne boo ci jël benn moom mooy li nga xam ne kon moo ca latu doon zéro virgule sept pour cent yéen kaa bi xëy di xamal ne ministre bi nag nee na ñi nga xam ne kon ñoom lañ ca laal ñëpp nag faaw loolu danañ ko gëstu su naataango yi xëy di nu fàttali rek ministère yi nga xam ne kon rapport Cour des comptes bi tudd nañ leen ci luubal yi nga xam ne ko nemmeeku nanu ko ci duñu benn leen nag mooy ministère bi yore wàll santé ak action sociale microfinance ak économie euh, solidaire waaye te ministère mine ak géologie ministère bi nga xam ne kon mooy yore ne kon mooy ministre de la jeunesse ak ministère du mooy ministre de la tam ministère bi nga xam ne kon mooy yore wàllu culture communication ba ca ministère bi nga xam ne kon mooy développement industriel et petites et moyennes industries yéen kaay bi xëy di xamale ministère yi kay lanu joxoon ci li nga xam kon moom naka wax na ko ki kon moom moo doyen des juges lu jëm ci wàllu li nga kon moom moo coow loole ci wàllu instruction affaire boobu doon mbirum Sweet Beauté yéenekaay bi xëy di xam le ne kon moom moo di Mamour Diallo ci kanamam ki kanamu doyen des moom directeur général bu office national de l'assainissement du Sénégal doon ONAS moom nag ma ngay xam la rek ne lu jëm ci wàllu mbir mi delsiwaat na ci lu bëri bëri ginnaaw bu ñu ko dégloo di xam la rek ne moom li nga xam ne kon moom moo jëm ci wàllu ko complot bu ñu koy wax nee moom xamul complot yëgul tinul waaye waaye nag ginnaaw bu mu jàppale ak leneen loo xam ne kon mu ngi ko cee leeral ci biir yéenekaay bi loo xam ne kon ñu ngi ko cee nettali Dakaractu ñu koy nettali mooy mbirum candidature ñetteelu mandat président Macky ndax dana ko samp waa wala déet yéenekaay bi di xam ci waa Benno Bokk Yaakaar ñu àndal ci li xam ne kon doon nañu ko amal ngir mën a xool dëgg-dëgg kan a doon seenu mbër yéenekaay bi xëy di xam la rek ne ba fi mu toll nii nag ñu àndal weexuñu ñu ba fi mu toll nii kenn kenn xamul fan la nu cay taxawee nee na nag wax ko bu jotee dana nu askan wi ndax président Macky Sall day samp ndëndëm waaw wala déet mbokk yi ne kaay dig dañuy Papa Saer Mbaye.